ah gars yi réaction yenn joueurs yi génn défendre Vinicius Camavinga moom jaar na ci digg bi moom ñoom Arda Güler Toni Kroos Karim Benzema ak kan Seedorf ñoom ñëpp salaam bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur ak seen sant après bu Rodri jëlee ballon d'or bi Camavinga dafa génne la politique du football politique football yi ni mel nee na nag Vinicius le meilleur footballeur du monde tu le meilleur joueur du monde. ah te amul benn prix bu ñu la mën a décerner loolu nee na amul prix bu antal niveau bi nga toll ci football li nga def ci football mondial en ce moment là tu es le meilleur joueur du monde benn prix moom la ko naatamle waaye Arda Güler génn soutenir ko def photo profil euh, story ak moom accolade ak moom Karim Benzema bind trop fort Vinicius Toni Kroos bind the best tu le meilleur waaye yamaatuñu foofu lu ñun ñëw mel ni ku jaaxle moom it tàggee kooku di Vinicius 100 pour cent avec toi waaye it yamaatuñu foofu kooku ñu naan ko Seedorf moomee nee na Vinicius le mérite plus que euh, euh, aucun d'autre mu ngi noonu nee na Vinicius daal moo gën a mérité loolee di Ballon d'Or. la gars yi wax ni ci Ballon d'Or bi. Vinicius Ballon d'Or li fal la. gars yi loolu ngeen doon gis noonu ci cérémonie ballon d'or bi la biir Paris ca fañ koy defee cérémonie bi la yenn amateur du foot nekk foofee di yuuxu turu Vinicius ballon door teg ci ay saaga scandale gi yu kenn xamul ñu ko fay wax mu ngi noonee que Vinicius mérite plus de ballon door li ni mel moo demee woon noonu foofee ca. biir cérémonie bi noonu la gars yi doon yuuxoo turam noonu naan Vinicius ballon d'or ballon d'or en tout cas ballon d'or bi jur na coow wër na mudd añ ci ñëpp a ngi wax ñëpp a ngi wax. ah gars yi Vinicius réagir na après ba ñu jëlee ballon d'or bi jox ko kooku di Rodri non kii am na mental de fer nag dama doon tiit mu jaaree fa non maa ngi ni di bëgg yéen ñëpp dama doon tiit gars yi mu jaaree fa ba faw affaire yi yàq carrière am yàq mentalam ba mu découragé dootul waneeti dara affecté ko mais ni mu am naa yaakaar que ni il va revenir Vinicius génn ba tuité nee na j'en ferai dix fois dix de plus si nécessaire nee na ils sont pas prêts ñii pareeguñu nee na bu jaree mu def lu tolloog lam def daanaka mu dolli ci yeneen dix la nga xam ne jot na ko def ba waroon mérité mu jël ballon d'or beneen yoonte dina jéem a def lu ëpp loolu lu mat dix fois lu daanaka lu mu doon def na ko multiplier par dix bu ko jaree dina ko def nee nag ñii pareeguñu non mais c'est clair net te cette mentalité la ça m'a fait plaisir lii laa doon xaar dama doon tiit mu jaaree fat carrière am yàqu ba foofu mais actuellement muy commencé am mental te bu luy weesoo mental bi nga am ci le fait que ñu jël trophée bi jox ko kële à ta place ci wàllu racisme beeg yuuxu de golo yeeg yooyu na ci gën a góorgóorlu tamit am ci mental bu ñu koy def muy reetaan bàyyi leen ci biir def ni Lamine Yamal def wala ni ay Endrick di def vraiment chapeau à mais nag gën a la concentré wu éviter. wax ak arbitre yeeg yooyu nekkal ci li nga nekk supporter yi nga bàyyi leen ci biir ne fi defal sa show ci biir terrain bi mais ñoom nga bàyyi leen ci biir def ni ñoom Neymar ak ñoom et tout le reste mais ku koy critiquer ci fii maa ko daa ko critiquer dama koy critiquer ba ñu bëri naan dama ko bañ fekk ne sax li mu doon def moom laay moom laay faral di souligner mais tey jii dama ànd ak moom 100 pour cent 100 pour cent dama ko soutenir ba ñëpp ñu bëri foog nañ sama joueur la fekk ne sax demee noonu laa nekk ngi noonu gars di jégalu gars yi bu wér ba beneen yoon ci yeneen vidéo